tàlleen yi la defe naa ndax euh, am na manifestation bu war a am ci ab sàlleen bu si kaname tey ñu teew ci lii nga xam ne ab sàlleen na koy taxawal lépp jëm nag ci jële fi ab sàlleen nee naa nee naa yéen ñi sant sàll kenn waru leen jiitu ci xeex bi ndax yéen a war a defar seen der ndax li fi ne defe naa mosuñoo am lu yées lii ci senegal ci gouvernance du ma wax lu sori nag ci Thierno ndax yàggu xamante bi mu génnee ci gouvernement bi lañu ñu doog toog waxtaan waaye li premier ministre Abdoul Mbaye wax sanqal dama mus wax nit ñi te déclaré ko dans la presse ni gëw nii ni liñ ma wax ci Thierno Alassane Sall ak ni ma ko gisee muy doxalee gëw ma ni dina am mucc ci foofu mu nekk 31 décembre defe naa bu année passée débat war a am après discours wala quelque chose comme ça ki ñu waroon représenter ñun suñu parti ci débat boobu 2STV yi bi ñu ne Thierno Alassane mooy représenter gouvernement bi ma ne ko boo demee bul tiire ndax c'est un futur allié ndax ñi bokk jikko ñi bokk jikko bokk gëm-gëm dañu lu mu yàgg-yàgg dinañu daje kon kuy woote valeur ci réew mi xamal ni sumb nga lu rëy rëy rëy ndax réew mi valeur amatu fi te njumte bu rëy la buñ ko yemalee ci politiciens yi valeurs yi crise des valeurs fépp la am ci société bi fépp la am ci société te ku jóg di xeex ngir valeur yow la ñuy njëkk a xeex je dis souvent que sénégalais yi ils très tolérants avec ngeen jéggal ma ci terme yi les corrompus et les voleurs mais très très exigeants avec les hommes de valeur duñ la tolérer dara nga am en face de toi un système boo xam ne suba ba ngoon jot nu ñuy soselee nit ñi parce que seen objectif mooy fexe ba gëmloo sénégalais ni politiciens yëpp a yem ñoom doxalu doxatuñu dox wane ni ñoom seet nañu wala yu mel noonu mais nu ñuy def ba su Thierno Alassane jógee ñu fexe ba gëmloo Sénégalais nii moom ak ñu na yem bu Sonko jógee ñu def noonu bu euh, Abdoul jógee ñu def noonu keneen ak keneen ñoom loolu rek mooy seen objectif kon ku fiy woote valeur war ngaa armé wu de beaucoup de patience defe naa loolu président de Seck da koy faral di wax ndax lu ne di nga ko dégg te Sénégal tuumal nit yomb na waaye na nga xam ni fa ngay amee adversaire dañoo nekk ci segment société bi yëpp muy ay homme de presse muy ay homme d'affaires muy ay technocrate muy ay homme politiques muy même des des chefs religieux muy ñooñu ñëpp nag kenn amu ci intérêt à ce que le système change moo tax les hommes de valeur dañu war a daje xam ni xeex bi du yomb foofu laay daaneel rek mooy yàqkat yi ne ci réew mi ils sont prêts ils sont capables de faire tout sortes de concessions pour daje ci li ñu gëm ñoom mooy nu ñuy def ba continuer di séddoo réew mi waaye est-ce que ñun ñii di woote safaan wa am nañu même détermination bi ak même capacité de dépassement ba mun a dajaloo boole suñuy doole pour mun a jàmmarloog système bi loolu ñun ñëpp la interpeller Thierno Alassane bonne chance et bon vent